Edere. Bismillah. Eh, coow li coow li jeex na eh. ma ne la loi ba voté nañu ko ñëw laas waaye vote eh. na lool métti césarienne un peu dans ci wàllu parrainage ko ke le quotidien yéene kaay ne ci wàllu parrainage ga day waaw ma ne la voté nañu ko day mais sans débat mbir ma amul waxtaan mar di taali enquête yéene kaay ne dëgg la ma ne la gis nga loi boobee waaw jaay doole kay nañu ko jàllalee laa la wax waaye kon mbir mi moom fii lay mujjee ak coow li coow nga xam ne maanaam moom moo fi jot a am yëpp fii lay mujjee moo ma jaaxal walaay bett nañu bëree bëri waaye ñi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo fare ak Macky Sall di majorité ba day waaw ne nañ leen voté li lée ma ne la loolee ba day waaw laa nañ fa démb de tegante nañuy dënn de xëxante nañu de Aïda Mbodj ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ay député Macky Sall di majorité ba day waaw ñoo jël dogal ba ne waxtaan débat du fa am te ñun day dem nañ ba ci président Moustapha Niass wax ak moom mu bañ ñu dem ca président groupe parlementaire ba ay maire ñu mu bañ tey kat ñun dañ leen ne nañ leen jël ci groupe bu nekk ñeenti nit muy fukki nit ak ñaar ñu daal di débat waxtaan ñoom ñu lànk ndaari tëdd ci daa mel ni sax xanaa dafa am luñ ragal ay meeru ñu ngi ne ñun ragaluñu dara dara te dawuñ tamit non nous n'avons pas fui le débat dawuñu ko de déedéet waaye imagineel yow téeméer ci ay doomu aadama ko daal di bindoo waaw loolu kenn mënu koo organiser sax impossible débat boobu déedéet ay demboo ne ñin ne ñoo lànk te di ci suuf ba teewuñu ko daala wax te gis nga xeex bi day ah day doog a door ay demboo jay wax de maître Madické Niang day li mu wax waaw nee na gis nga voté nañu loi bi de te mbir mi amul waxtaan amul dara amul débat amul dara te askan wi yëpp ñoo ngi doon xaar maître Madické Niang ne te ñin nag bëgg ñoo nekk nag ab complice de ah waaw waaw ci yëfu maata yi nga xam ne ko kon moo am tey ci assemblée nationale démocratie wu mi ci boppam nag la jël kon football ko dëggaate ko moxoñu ko laa wax wal fajiri ne en tout day a laalaa dañ ko de a ah. waaw léegi zéro virgule huit pour cent gën a néew gën a bëri un pour cent boog soobi en tout cas Macky day taw sa na leen taw sa maa la ko wax ba la loi ba day daal dinañ koy voté na ca mbir mi amul amul dara sans débat et sans opposition parce que Diop waaw ay takk dere leen wër état de biir rax ci dolli la lacrymogène ya ca boppam kon ni tulleeg man le ca dëkk ba nga xam ne kon foofu eh. lañ doon voté kon loi ba vox populi ne moo ni opposition bi démb day ah, raag nañu de raag nañ de waaw waaw la tee mooy yéene kaay ne moo taxi day am na ñun ca jàpp Alaaji Malick Gakou day lañ njëkk a jàpp jàpp nañ tamit Idrissa Seck jàpp Thierno Bocoum ak Ousseynou Gueye jàpp Aly Nguer laas boole ca Oumar Sarr ah, waaw jaarul yoon la jaay doole kese la waaye nag Macky Sall moom na jàpp ne Idrissa Seck de lépp lu ko mën a dal ci wàllu yaramam Macky Sall ya wax uh-huh. Abdourahmane Diouf ne waaw député de Jafal day mooy tuumaal président Macky Sall ne Macky Sall daal wàllum dictature jaay doole ci boppam kon la bëgg fii ci mim réew waaye na ko leer ne loolee day pour mu am ko moom Macky walaay dana jaar ci suñuy kaw yi néew Macky Sall boo leen gisee mu bëgg ñoo rey yëpp dara de lu dul bëgg deuxième mandat rek deuxième mandat ne te Sall bu mu sonn mënul am deuxième mandat te Macky Sall il faut nag mu nango benn affaire de ne sénégalais ci boppam ñoo génn ci moom sénégalais ñoo bëggatul Macky daal Macky na nangu loolu du samay kàddu dee Déthié Fall lay wax ne askanu ci boppam kon xoolal ñoo wàccu Macky Sall xaa xëf ne termine yéene kaay ne kaw assemblée bi de Ousmane Sonko ne gis nga dañ koy danañ ko xeex ba keroog Macky Sall di wàcce a la wax te gis nga bisu démb bi waaw ñin ndam lu rëy la ci ñin laa la wax Ousmane Sonko ne waaw ñin kay li ñu bëggoon sax dañoo am lu ko raw yéene gi ne Abdoul Mbaye day waaw daa xamle woon ne am na benn manifestant boo xam ni kon daa dee waaye ministre Aly Ngouille Ndiaye daal dina koy weddi Omar Faye leeral askanu ci tribune yéene kaay ne ñin daal li nu mënul xam mooy am réew moo xam ni day ñoo xam jël ay grenade leen waaye lii lan la jiital leeral askan ne nguur gii nga xam ne daanaka jeexal na de nguuru Macky Sall gi moom jeexal na tàkk moom suñu xeex beeg moom day day continuer rek nguur gi jeexal na parce que Macky Sall kat benn militant dong la dese kenn rek a ànd ak moom mooy takk deri force de l'ordre maa la ko wax Momar Dieng journaliste ci tribune yéene kaay ne taarix dootu ko fàtte de lii l'histoire retiendra ne Macky Sall juge et parti di a doxee changé na ko loolu moom kenn dootu Moyo yow Macky Sall musiba mbaa ba ko ma di fiasco tojaange yi nga xam kon moo amoon ci élection député yi day dañoo yaakaaroon ne Macky Sall dana ko rectifier defaraat lépp ba mu baax waaye gis nga ko moom daal mbiru boppam rek taxawaayu égoïste daal mar day taali mar day taali Momar Dieng waaw dana gis ngeen suñu démocratie bi ah wallaay fam jëm moo gën a nar a bon fuuf le témoin yéene kaay ne xoolal hôpital Abbas Ndao dañ leen a joori grenade ba maari day ña feebar day malade ya dañ leen fa doon mujj génnee di leen évacuer ay waay jile ay waay jile kilifa bu yaana maar ah. ne sénégalais ay défaillant lañ mar day parce que génnuñu ay sadatal sal ne xam nga suñu demee ba église bii monseigneur Benjamin Ndiaye ak imaam wax waa ñun député lan moo ñu war lu dul bàyyi lépp mu sedd mais dara Toussaint Manga moom loi ba la xot ci digg ba deret ne du fi jàll maam jaara faam député diaspora moo tojee bu yëngal assemblée nationale nag yëngal gësëm termine yéene kaay waaw parce que président Macky Sall daal xam le ne ñi gën tuuti ci réew mi minorité ñoo bëggoon jaay doole ñi gën bari imposer seen dañ ne woon dëkk bi day dàkk waaye sénégalais tey wan nañ leen ne leen dañoo mat sëkk ak barke ñor xomm teg ca duñu leen topp boog seen caaxaan yi <laughs> alaaji président li mu wax yëpp dëgg la waaye balaa mu doon safe mu waxee ko fii ci biir dëkk bi ndax fariñ moom du jariñ lu dul beñe wala fataaya boo paree ma ne la alaaji te Thank you.